xel dootul dal te nag jaami yàlla sax mu julli woor yaakaar ak xel dal lañ ci am ndax ku mu wóoroon tey sa benn julli rek nangu nañ ko mën ngaa ñàkk tey julli ndax doy na pour nga dugg àjjana ëllëg loolu la kilifa diine yi wax waaye ku nekk xam na ni yaakaar dina iya, yàlla ñu yàlla moytalil yaakaar bi li ñu koy moytalee nag mooy ni ngeen kan def ko mobilisé wu ñëw fii yeeg ci kaar yi ci tàngoor wi loolu fajaru ginnaaw ba nañ xëddee ba pare tem bu ndànk dem ci biir ba moo ko gën a yomb li ngeen kan daj tey du ngeen ko du ngeen ko daj dimanche li ngeen daj tey ngeen ko daj dimanche kan kon maa ngi ñaan rappeler li docteur Sindo engagement bu la kenn mën a défier du sa njaboot du xarit du keneen benn bés buy wuti buy wér ci juróomi at dafa jar a bàyyi xel wax naa ko léegi ci caravane bi def na nga fi nañ ci demee xel bañ cee demee xol nañ ci demee xel bañ cee demee xol ñeneen ñi ko seqal nag bëri ñoo xam ni xol la ñuy demee dafa jàppale loolu nekk na ci ñoom. yal na ko yàlla tegg ci ñoom ndax xol jëfee xol defarul dara rawatina commune bi nga xam ne ñëpp dañoo àndoon di bokk ndey bokk baay bokk liggéey suñu gox. kon li ñu bëgg mooy fal Amadou Ba dès le premier tour docteur si wax na ko deuxième tour incha allah du fi am ndax deuxième tour ay milliards la tour. itam waaye ñu réglé affaire bi ku li ma wax ci campagne bi ku kaw xam nga ne day bu wax ay ñaari appui ñetti appui ñeenti appui daanu naa daanuwul dafa nekkul ku kaw waaye boo ko ne tip mu xalangu doo xaar sax arbitre pour mu yëkkati sa loxo boo ko ne tip mu jaaxaan doo xaar arbitre pour mu yëkkati sa loxo moom la ñu soxla kon ku kaw ku kaw boobu nag pour moo am il faut que lépp na ngeen joxe participation bu kenn joxewul foofu lañ leen di xaar ndam li ku gis nii te gëm yàlla war nga wóolu yàlla xam ne ndam li incha allah mu ngi suñu loxo waaye nu mu gën a kawee noonu la gën a baaxee ndax département yi yemuñu commune yi yemuñu doole yemul bu ñu demee quatre-vingt-dix quatre-vingt-quinze mottalil la bu ko defee ñu romb cinquante cinq soixante pour cent yi nga xam ne ñu ngi koy yaakaar pour fal ko dès le premier tour kon catli nañ moytu catli mooy dem ba ci digg bëccëg bi gis kees yi yëpp nekk yeneen carte le carte Amadou Ba yëpp nekk ci ay enveloppe nga ne ah ñun gagné nañ ba pare mën naa toog loolu mooy catli nañ moytu catli de nañ moytu catli de nañ ñëpp voté ji mooy message bi man doon wax léegi ci caravane bi li mu jeexee wax ji may dégg wax bii may dégg wax bu yàqu la mooy Makumba soxlawul Makumba rek a soxla ñu ngi jeex si ñenn ñi naan leen Makumba soxlawul parce que xam nañ ne Makumba naa leen Makumba soxlawul président présidentiel la. Makumba rek a soxla ndax Makumba li mu defagum laaj na ngeen ngeen wax ko te mu xeet ko lool pour mu mën ko def lii xëy na mën-mënu boppam la lii ay partenaire am la lii mairie def na ngeen la waaye la ca ëpp gunge bi ko président Macky Sall xaritam doomu ndeyam gunge moo tax mu mën koo def kon nag bu ñu nee nañu voté Amadou Ba. budget nga xam ne ni président Macky Sall loolu la doon def moom la président Amadou Ba nar a continuer def xam ngeen ne suñu doole yàlla mën na ci yombal mu yokku muy man muy docteur si muy yeneen cadre commune bi yëpp.